jërëjëf mbokk internet ci buru ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel del siwaat ak yéen ci beneen jotaay xam-xam ma du Diop kokki ak i ndaam taalibe Cheikh Mouhamadul Moustapha taalibe Serigne Khadim jàmbaar ji ñaankatu yàlla bu mag bi borom nakk yi tey nag la dugg directement vif maanaam vif au sujet Abdoul Aziz Ndiaye dafa mel ni kuy tàntal wala kuy kàmbal Modou xarañ loo auzu billah bismillah buur nañu xam ne Assis jaay la ma leen waxoon rek programme am bi muy teg mooy dugal Modou ci kàmb kàmb gi mu koy dugal nag bu ca Modou Lo xasee ba ne cabax ñoom roi bi danañ ko foqate jox ko Balla Gaye te seeni pexe yëpp yëpp yëpp yëpp mooy Modou Lo bëri ak Balla Gaye wala mu jël avance su Balla Gaye te bis bu jëlee avance su Balla Gaye dana jekkati mais waaw bu fekkente ne dafay liggéey dina ko jël waaye jël géet du arrangement ndax damay wax ne maanaam gis nga làmb ji maanaam ñu jekku la ci mm-hmm. nga dem ba mu jàgg kala jekk woon jekkati mm-hmm. lu jafe la te dama bëgg ñu xam ne Balla gay jamono bii dafa am taxawaay Modou Lo moom am na taxawaay gaa waaye Balla gay jamono bi dafa am taxawaay ci wàllu mystique am na taxawaay ci wàllu entraînement am na taxawaay ci wàllu encadrement mm-hmm. te Balla Gaye demul ak boppam loolu dama bëgg ñu xam ko. demul ak boppam déedéet demul ak boppam. Hmm. koo xam ne si ne maanaam bu fekkente ne nee nga càpp mbir lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt hmm. daanaka lu ma téeméeri nit danañ jóg di xànc ka fas di génne sarax. Hmm. yëf yi jaral leen dem ba foo xam ne si ne maanaam ci ci wàllu gàllaaj ak mystique bu fekkonte ne téeméer la ñu fayoon ci làmb ji ñoom mën nañ caa def ñaar téeméer. ngir mbër ma daan kooku koy song war ngaa siraat sa bopp. mais est-ce que man xamul lu ma jàpp ko kii dañu jàpp ni kon Modou dafay daan Siteu ndax dégguma seen benn wax te pourtant Siteu mën na daan Modou xam nga Siteu mën na daan Modou waaye loolu yombut ndax euh, waaw olof dañuy wax ne xobu xël ëpp na gémmiñu taf loolu nag su ma ko waxee nekkul ne dama xarab wala ma xeeb ki nga xam ne si ne moo di Siteu waaye yëf dafay mel ne maanaam programme bi dafa jéggi diggante Modou Lo ak Siteu mhm. ndax la koy waral mooy jëmmi Siteu bërekat la jàmbaar la am na engagement am na ay bokk waaye Modou Lo dafa am foo xam ne maanaam yëf yi day mel ne dañ naan ne maanaam dañ ko tàmbalee ci ngañ mu jéggi ngañ àgg ba ci demba mhm. loola nag bu amee ñi ko séq ñooy war a xam ne lii teguwul ci am xel waaye ci stratégie la tegu mhm. maanaam Modou Lo digganteem ak Siteu du maanaam bu bu bu ci bu ci bu ci am yaakaar ci jàpp ne maanaam Siteu mën naa daan Modou Lo. maanaam coow mën naa bari ba làmb ji nit ñi jox ko bët bàyyi ko xel waaye programme boo xam ne si ne Siteu danaan ñoŋ ci kaw Modou Lo moom. loolu man gisaguma ko wax dëgg yàlla. mais si tax bu mbir yeggee fii. boobu man wax lu mbir mi gën a dem. nga di ko seet. di ko gis di ko wax te la nga koy seetee di ko gis di ko wax noonu lay demee du jaas. waaw buur loolu li ko waral mooy <clears throat> lépp loo xam ne si ne dafa màcc ci lu ma lay wax dama koy seet ci fànn seet yoo xam ne si ne lu mu gàtt gàtt dana àgg ci juróom-ñetti façon yi seet te benn bokku ci ak moroom ji benn bu mën a doon la ko tënk ci rawaxaan bokkut ak moroom ji benn bu mënti doon la ko tënk ci taxawaayu xuddaab bi nga xam ne si ne moo la jox xibaar ci kooka bokkul ak morom ji. benn bu man doon la ko tëng ci man ci taxawaayu biddiw yoo xam ne si ne biddu bu comparer la bu complété bu matale xam lam la cay wax nga xam si ne lii mu la wax nii du tuxu ndax biddiw bi ndax fi doon nii ci taxawaayu biddiw yi léeg nga seet taxawaayu biddiw boo xam si ne biddiw ba mu ba mu dëkkaale day wor fa seet gay jeexe nga xam ne lim yow lii la wax nii moom lu dëggu la waaye boo avancé ba ci kanam am na taxawaayu biddiw boo xam si ne fa muy taxawee day day dafay dafay échec. Mm-hmm. loolu nag moo tax ñu baree bari di daanu ci wàllu seet man nag yaakaar naa musuma laa wax. lu mm-hmm. deñ waaye lu ma lay wax it tegu ci bak tegu ko ci bakkan loo ma lu ma lay wax it dégg ko ma micro ci bis bi ma wax la ko ci bis bi. Mm-hmm. waaw ndax bu mbir waree am dama naan la ah mbir mi day bàyyil danaa ci dem léegi su ma demee ba àgg ba war a wax danaa wax na la loo xam si ne du deñ li nga xam ne moo am te moo am nag mooy wàllu seet ku nekk ci àdduna rek war ngaa jéem a góorgóorlu di seetlu say mbir ndax suñ boroom dafa tënk xawaa yu maa yu naari yu trois bi bi mu sàkkee nit ñi ñu ñëpp di ay trois bi yu ndax ci ban la leen sàkke ban ba mu leen sàkke dafa dañuy wax ne ban ban la boo xam si ne mbalit la waaye dafa jëlaat naar yu defaat ko ci nit ki nit ki léeg-léeg mu am tàngoor di ñaq mu jël xawaa yu def ko ci nit nit ki di am ay lor di am ay kabine yu tooy di am yoo xam ne maanaam ci tabixa bi nga xam si ne mooy euh, euh, euh, maa iyu mu jëlaat maanaam ay xeeti ngelaw def ko ci doomu aadama nga xam si ne ay pomoom ci lañuy ñuy nokki di xëcc di delloo mhm. maanaam léeg-léeg nga nit ki war a ngelawal ngelaw lool loolu lépp sunu ma da koo tënk ci tamit bi ñuy wax xawaa iyu mhm. loola itam nag noonu na ko séddalee ci doomu aadama yi kenn ku nekk am na nature boo xam si ne mooy sa nature ñu am na ñoo xam si ne trois bi yu moom lañ jàpp muy suuf ñooñu tey jii boo leen xoolee ñu mën a muñ la ni doon ñaari nag seeni wërsëg dafay taxaw ci taxawaay boo xam si ne faaw wërsëg ba dafay yeex maanaam nga doon léeg am na ñoo xam si ne seeni mbir dafay taxaw ci naar yu nga xam si ne ay amkat la ñu doon waaye bala ñuy am bala ñuy jot ca la ñuy am dafay dafay dafay dafay dafay dafay tar dafay am métit métit am na ñoo xam ne si ne seen mbir dafa jàpp ci xawaa iyu nga xam si ne maanaam seeni wërsëg lu ci bari dafay mun xalib mhm. maanaam faw ñu jóg dem doxi ji wala ñu jóg dem voyage ji wala ñu jóg dem dikk ngir loola mën a sotti mhm. loola itam nag tey jii noonu nga mën a taxawee ci mbirum doomu aadama pour xam ay mbiri boppam ci ban biddiw la taxawee ndax nii nga xam ne si ne moom laa la waxee ne maanaam nit ku ne ak nature am am na ci ñoo xam ne si ne seen i taxawaay biddiw seen taxawaay wërsëg seen taxawaay am dafay soppeeku di taxawee ci biddiw yi ma la wax. Mm-hmm. te bu taxawee ci xawaayu te wuru faa taxaw su boobaa jafe-jafe lay am. léeg-léegi nit ki maanaam biddiwam fekk ndax maanaam na nga xam ne nit ku mën a doon ay bis ju nekk sa biddiw dana ci soppeeku am duggin woo xam ne si ne bokkul ak diggun ba nga xam si ne moom la amoon ca semaine bu lay passé léeg-léeg nag mu duggee ci kër gu lëndëm su duggee ci kër gu lëndëm nag lépp danaan kàkkale. say mbir dëgër dëgër donte da ngaa doonoon koo xam si ne da ngaa war a signé benn contrat sax contrant boobu pour nga signé ko dafay doon loo xam si ne lu gàllankooru lay doon. Mm. donte danga am benn xaalis boo xam si ne nit la ko dig ba nga war cee jot xaalis boobu pour nga jot ci il faut yëf yooyu tànk-tànk am ci wala dëgër-dëgër am ci. Mm. donte da ngaa war a waxante woon ak nit ba mu fas denc mu ne la waaw kooku mën naa xëy wor la. Mm. loolu tam nag noonu la demee ci maanaam nit ñi nga xam si ne dañuy takk jabar léeg nga takk soxna soo xam ne si ne maanaam seen xuloo dafay bari ah, wante du ngeen xam lan la ñoo naan ay dañoo liggéey te fekk liggéeyu leen sëy bi bu fekkente ne dana koo seet mu taxaw ci maanaam ci kërum noonoo bu boobaa bu sëy ba fasoo rek jafe-jafe day daal di commencé mm-hmm. coow guddi coow bëccëg noonu itam tey jii ni la am ñoo xam si ne maanaam rawaxaan bi nga xam si ne moom la ñu am rawxaan du nangu mukk mukk mukk mukk góor ki sos doom ci ku jigéen ki mm-hmm. waaw nga xam ne si ne da ngay gis ko am si ne dana sëy lu mat 30 ans du am doom yooyu ñu ngi ko fiy defal ñëpp dañ leen di sampal mm-hmm. maanaam ci taxawaay boo xam ne si ne bu nu ko sampee ba ba soppat ñi taxawaay biddiw ya génneel ko sarax ya dañuy daal di toog nag maanaam def benn riyaada boo xam ne si ne maanaam dañ koy natt ci deux heures de temps wala quatre heures de temps boo xam ne si ne riyaada saa boo ko déggee nag mooy loo xam ne si ne boo koy def doo sori fi nga koy defee su waxtu wa jotee nga def rapport ci taxawaayu biddiw yi biddiw boobee ngay def taxawaay nag moom moo lay wax na la kii boo ko génnelee sarax sàngam bal bi tàkk bu dee koo xam si ne dafay nobante ak nit wala koo xam si dafay bëggante ak jigéen te jigéen jooju bëgg ko nga bëgg koo def noob noob gu gaaw bu la neexee nga def ko noob goo xam si ne du génn vingt quatre heures. waaw mais comme li mooy. Mhm. Euh, ñaar ñu ci këru noonu. Mhm. déedéet loolu mhm. waaw riyaada bi moom mooy nekk pexe ndax bu fekkente ne maanaam kër ga mu ga mu nekk dafa doxut maanaam dafa am taxawaayu biddiw yoo xam si na koy soppal ñi biddiw yi dañuy am ay daraja daraja maanaam daraja ju njëkk daraja ju diggu doomu daraja ju mujj mhm. léegi nag dangay xool fa nga xam si ne boo ko fa xasee ba sempee rek la fa nekkoon daan leen yàqal du deñ nga sempee ko foofa te dama bëgg ñu xam ne biddiw ak rawxaan dafa dafa dafa dafa dafa dafa dañoo bokk ay doxalin te soreño lool mm-hmm. mi ngi mel na tey ñu ñun la déjjil garab gi nga ñëw dagg car yi loolu mooy rawxaan mm-hmm. li nga tegg danga nga koo tegg nii ci kaw rek waaye xëy na maanaam bu avancé waatee tuuti mën naa jebbiwaat ba mel na meloon mm-hmm. biddiw nag saa boo ci sosee mbir te teg ko fañ ko war a teg na la wóor ne mbir moo moom danga ko dog ci ay reen bu dee loo defit da nga koo def ci biiri reen loo def ci reen nag moom loola moom ba illaa ajalan musammaa du soppeeku kon lu ci bëree bëri moo tax waaw déedéet ñëw rek sëñ maanaam maanaam nit ki ku mën a doon ci àdduna saa boo defee fukki fan ak juróom-ñaar war ngaa sampalu sa mbir seetlu sa mbir ñu génne la say sarax wax la na la nangam ji ak nangam ji de ko sarxe te danga ngaa daa bëgg nga xam ne nit ku mën a doon ay bis ji danga cee am ñaari bis yoo xam si ne bii mooy sa biddiwu taxawaay ci la sa lépp jàpp beneen bi mooy sa biddiw bi nga xam si ne moo jàpp sa bayti maal muy sa këru alal kon nit ki bu fekkente ne dafa bëgg wërsëgam du yokku dafa am foo xam si ne dañaan ko yokk bis sangam mooy sa bayti bu dee ñi nga xam dañoo jàpp ci seen bayti dafa jàpp ci marix di waa misaan ñooñu mariex la talaatal seen biddiw ja mooy seen këru alal mm. mooy mooy mooy biddiwu porte bonheur bi fa mu sampo léegi bu fekkente ne ñi nga xam ne balance lañ ñoo ñëpp seen baytimaal dafay jàpp ci talaata di marix ñi nga xam ne si maanaam dañoo doon sarataan di euh, maa iyu du di ñoo ñëpp tey gis maanaam seen baytimaal dafay jàpp ci samedi euh, ci dimanche ñi nga xam ne ay azad lañ ñoom seen bidduwu taxawaay dafay jàpp dimanche waaye seen baytimaal àllarba lay doon mercredi léegi nag yooyu yëpp nag dafa baax ci nit ki mu xam ko ndax léeg-léeg sax yow sa jëm bopp nga duggante ak nit ci biir duggante gi nga duggante ak nit ki ki nga diggante seeni mbir jubawut la nga sampoon na kus as wërsëkus akus néew nga ñëw koo ko kale ko ba pare faagaagal ko hmm. moo tax seet képp ku mën a doon ci àdduna war ngaa natt koo koo xam ne waxuma ne kenn na ñëw sëñ ax ma waaye man ngaa natt koo xam ne si mën na laa seetal hmm. seet gu wér mu seetal la hmm. ci biir seet gi itam mu doon mu doon seet goo xam ne dana la génne lu leer naññ man nag ni may seeta mooy damay am ci seet boo xam ne si ne dama ko samp ci taxawaayu biddiw ndax nit ki dafa am maanaam maanaam naari yu am rawxaani yu am nuuraani yu am na ci taxawaay boo xam ne si ne taxawaay rawxaani yu la am na ci taxawaay boo xam si ne taxawu naari yu la ndax dafa am maanaam ku man doon ci àdduna ngay am wërsëg rek na xam ne sa wërsëg buy ñëw ci sawara lay jaare koo dégg ñu la am na xaalis na nga xam ne xaalisam buy ñëw biddu ba fa muy jaar biddu sawara la te loolu ñu bare bari xamuñu ko léegi biddu sawara boobu nag bu fekkente ne dafa dend këru ndox loola du arrangement biddu bi waaw day fay loolu nag moo tax ñu bëree bëri seeni mbir dafa am ay yaakaar yu tas te yaakaar yu tas yooyu maanaam allah kulli àll saa bu amee rek xamal ne rab opposé wu na. ci waaw ci taxawaay waaw ok bi. Mm-hmm. te rab bu opposé woo ci taxawaay biddiw bi rek munoo fexe fexe fexe fexe fexe ba la mu opposé yow nga daaneel ko ci. fekk jëflante waaw faaw da ngay maanaam dindi loola soppar ñu ko. ba biddiw ba nga teg ko ci yoon boo xam ne si ne yoon bu avancé la mm-hmm. nga taxawee ko foofu loola nag benn mbindaafan mun laa wax ci àdduna ne mën naa koo sottal te sottalu ko ci ceeb mm-hmm. seet moom du nit di foowee baa man ci baa boog man ci li ma xalaat ndax àdduna bi moo bindoo noonu daanaka boo dee xool suñu mbokk yi nga xam ne ay chiffres la ñoo ay maanaam seen lépp dafay dox ci kalkin mm-hmm. ndax tey jii boo dee xool ñun bisimilahi rahmaani rahim yi ñuy wax nii chiffres yi am nañ ko te mooy li nga xam ne si ne lu ñuy def ci àdduna foofu lañ koy tàmbalee. waaw muy la muy double mais double mais point. na maanaam waaw six la waaw. six la ñetti waaw du dix huit. ñu teg ci point muy dix neuf di bisimilahi rahmaani rahim amul benn entreprise booy dem te doo fekk double mais double double point. <laughs> yooyu nag dafa doon mbir yoo xam ne. maanaam na nga xam ne ñoom lu mën a xew ci àdduna seeni programme am na fu nu ko teg te fan ko tegit génnul ci seet mbir bu ñëwee dañ koy toj xam la cay war a xew ci ci fi ñu ko tàmbalee xam la cay war a xew ci biir xam la cay war a xew fa mi war a jeex loolu nag moo tax seet moom euh, képp ku man doon ci àdduna man ma defal la ko da nga ci gis danga nga ci yéege wala nga xame ci loo xam ne si da ba nga juddoo ba fi nga tollu musoo koo xam ndax man noonu laay seete man su may seetit la ma lay seetale dama la koy defal audio whatsapp benn par benn génne la say sarax génne la sa baytimaal génne la sa taxawaayu wërsëg génn fekkee da nga ne ci ay jafe-jafe dama naa la xam ne jafe-jafe bii nangam moo ko waral te la ma la cay wax dana wóor ne loola moo ko waral moo tax ñaan yàlla benn doomu aadama mënoo taxaw ne dinaa ko def te seet jiituwu ca ndax nit ñi dañoo am ay gàllankoor ci wàllu rab da ngay gis koo xam si ne dafay dox nii rek. benn ngelaw dugg ko te ngelaw loolu moo moomewu ko ndax léeg nga dox ci bërëb ra àndoo ba fa nekk maan dafa am dafa am bagage bi boppam yow sa jëm bopp da nga am ay bagage léeg nga daje koo xam ne si dafa am ay bagage te yooyu yëpp maanaam settantal rek moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko mën a génne moo tax ala kulli haalin ñun ci sunu xam-xam fi ñu koy teg day doon ay sources yoo xam ne si ne nit du ko gaaw a teggi la ko waral it mooy dañ cee juddoo xam ko xamit li ñuy dox ak li ñu doxal lan la moo tax bu buñ demee ba war koo doxalin nag dañ koy teg ci lu leer nañ yàlla dogal na ni kenn gisuñu ci yenn site ñuy taxawaalu benn site la ñu xamee muy buur géwal bii waaw te ñi ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawféex ba mu doon ay tere maanaam nam war a matale ak nam war a màgge suñu borom defal ñu ci tawféex ñuy ñaan it ci baaxu sëñ tubaa màggal gi nga xam ne si ne génn nañ ci yàlla nañ ci dajeeg tawféex sëñ tubaa te yàgg koo defal sëriñ tubaa ci ak bëggam bis bi nga xam si ne mooy laylatu mawlidi nabi ñu ngi ciy ñaanal bokki julli ak bokki taalibe yëpp di niñ ko niñ ko bëggee ñu ñu ñu defale ko noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ndokkeel nag Cheikh Ababacar Sy Mansour ci tawféexu ju réy ji nga xam ne si ne yàlla dogale na ko ci ak nguuram muy jumaa jumaay waawoon jumaa ji gis nañ ko képp ku di ab jullit rek sa xol sedd na ci ñi ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko ak wér di ko ñaanal it njabootu Cheikh Ibrahima Niass Maulana di Cheikh Mahi ñas nga xam ne si ne gis nga taar bu rëy bi mu def na Baye dafa mbaar moo xam ne si ne tey jii ak ak ak ki nga xam ne si ne mooy jàmbaaram ji Cheikh Mahi Cissé mm. ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla waaye di ñaanal yàlla suñu jàmbaar ji nga xam ne si ne mooy Cheikh Mahamadul Muntaqa suñu boroom gën koo dëgëral te samp ko te lépp loo xam si ne yéene na ko liggéeyal maam ju baax ci Serigne Touba yàlla na ko suñu boroom may ay tànk yu dëgër ak taxawaay bu dëgër bu ko matale ban mu def ko ni mu ko bëgg a defee ñi nga ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bokk taal bi yi nga xam si ne kenn ku ne ba màggal gi ñëwee dangaa ngaa dëgg sa àddiyee yónnee ko. Mm. sant na ñëpp gërëm na ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.